للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد Daaru Salaam dëkk bu tedd bi mënee su ko tudd te xel yi demul ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moo di sëriñ Modou Rokhaya nekkoon sët ci maam Cheikh Anta Mbacke nekkoon xalifa waajuram wu tedd wa di sëriñ Modou Mamoun Mbacke ci atum 1969 liggéey fii liggéey bu am solo waaye it amoon relation bu ratax lool ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rawatina waa kër Serigne Touba yi Serigne Modou Rokhaya liggéey fii liggéey bu am solo laata mu fi bàyyeekoo ci atum 1996 Serigne Modou Rokhaya turam ak jëfam gu rafet des ci taarixu yoonu Mouride. di ñëwaat ci lenn ci ak dundam di ay seede yoo xam ne yenn ci kilifa yi def nañ ko kan moo doonoon Serigne Modou Rokhaya. Serigne Modou Rokhaya nag sun boroom da ko baaxe ci aw askan ndax nit mën naa bokk ci ak bokk te askan ya wuute moom nag ci wenn askan la juddoo muy askanu. maam ma xaram ndax euh, bu dee ne sëriñ Modou Mamoun moo ko boole ak sëriñ Touba ndax sëriñ Modou Mamoun mooy taaw maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta bokk sëriñ Touba sëñ Mbàkke Mor Anta Sali maam Balla Aysa di seen maam maam ma xaram jur ko loolu kon doy na ci adresse waaye moom da ci dut yem ci li may wax ne yàlla moo ko waajal préparé ko ci ak bokk mooy su doon ne Serigne Modou Mamoun rek dangay tudd maam Cheikh tudd maam Mor Anta Sali tudd maam Balla Issa dana doy waaye lu tax yàlla tànnale sëñ Modou Rokhaya ci sëñ Modou Mamoun nga mën a ñëwaat ne soxna Faati Mbàkke mën a wax Ibra Kani tudd Ibrahima Awa Niang tudd maam Maharam nga xam ne loolu mooy meenum sëñ Modou Mamoun lépp delluwaat ci maam Maharam te soqi koo ci sëñ Modou Roqee euh, mënoon na ne sëriñ Modou Roqee sëñ Modou maam euh, Cheikh dem ci sëñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye sunu borom defalaat na ko foofu ci tànnal ko aw askan wu baax mooy maam Cheikh soxna Anta Ndiaye Mbàkke Ibrahima Awañang maam Maharam nga gis ne kon amut amagut menn maam mu génn maam Maharam waaye loolu ci kër baayam la. waaye boo duggee ci kër ndeyam it noonu la ko ci yàlla waajale ni mu waajale ma baayam ci kër ndey waajale ko maamam ci kër ndey noonu la ko waajale moom itam ci kër ndeyam sëriñ Modou Roqee ngay wax Roqee Touré Aminta Mbacke Ibra Kani Ibrahima Awañang maam maaram kon moom daanaka mbokkum ñëpp la ci wet gum ci mën doon eh, muy waajuru góor wala jigéen yaakaar naa ko ko gëstu wala nga taseeg historien bu mën a xam na mu na mu demee mbokk goo ci tudd rek mu doy waaye nag da koo rafetaloon dafa jëloon bokk gi e, rafetal ko lool te yaatal ko te xam nga ni mu demee ci réew mi ci bokk kon mën nga ne amutoonuk jot ndax wet gu ne am na fay bokk ndax e, fii ci Daaru Salaam la ganee àdduna ci atum 1918 damay wax ne bi fi sëñ Modou Moustapha ganee àdduna ak sëñ Fallou sëñ Touba jóge Daaru Salaam sanc Touba ki fi njëkk ganewaat àdduna mooy sëñ Modou Rokhaya ci 18 atum 1918 loolu it am na jeexital ci moom. sëñ Abdou Lahad sëñ Touba day waajuram waaye sëñ Mouhamadul Mamoun dafa nekkoon. xaritam nekkoon wéeruwaayam nekkoon roykaayam ndox sëñ Modou Mamoun sëñ Touba ko lu ne ci moom moo ko def ci moom sëñ Abdou nag gannaaw sëñ Touba dafa baaxawoon di xeñtu sëñ Touba ci ñi mbokkal waajur ak ñi sëñ tubaa defar mu mel ni bi ak sëñ Modou Mamoun nag sëñ Modou Mamoun da ko féetewoo mooy mu nangu féeti woo ko te na bëgg ko yàlla bind daawut jóg fa moom senn saa daana fa fanaan daana fa yendu daana fa gont gannaaw sëñ Modou Mamoun da koo féetewoon mu nangu féetewoo ko nag gannaaw sëñ Modou Mamoun sëñ Abdou Lahad dafa féetewoo sëñ Modou Roqe sëñ Modou Roqe yoon nangoo péete ga jàppale ko ci liggéey bi mu doon liggéeyal sañ Tuubaa ndax sëñ Abdul Ahad da doon liggéey sëñ Tuubaa ci fulla ak ci dëgg aku fit ak pas-pas yooyu nag mu gis ko ci sëñ Modou waaye des na beneen jeexital bu gën a kawe ci sëñ Modou Roqe ci melokaan wi mu yor waajtaay wi ko yàlla waajal mooy bi mu ganee àdduna itam dafa daje ak soxna xari Penda Fall mi nga xam ne mbokk ma ca xaali Amar Fall bàyyi ko ci soxna Mbàkke Awañang ma nga xam ne moog Ibrahima Awañang ñoo bokk ndey ak baay soxna Xari Penda Fall moomu doomam jum amoon ak Serigne Touba ñu tuddee woon ko Mouhamadul Mokhtar at mi sëñ Modou Rokhaya feeñ jamono la la Mouhamadul Mokhtar génn àdduna sëñ Touba duppeewaat ko tur woowa kon day mel ne baatinub Mouhamadul Mokhtar mooma dana jeexital si moom ndax yéen a ji sëñ Touba amoon ba tuddee Mouhamadul Mokhtar mooma Mouhamadul Mokhtar mu génn àdduna sëñ bi duppeewaat ko Mouhamadul Mokhtar. mu sëriñ Modou Mamoun loolu jeneen jeexital la ci jikkoy sëñ Modou Rokhaya. Cheikh Modou Rokhaya itam ah ñu delloo ko jox ko Cheikh Mahamadul Moustapha eh, loolu itam xam nga ba tey yëf ya doyut muy dellu di dem rek ba agsi fi mu agsi mu méngoon jamonoom lool nag ci digganteem ak waajuram yi mu fi nekkaloon moo xam ci. Ah, ci ci ñu aju ci maam saxant la wala ñu aju ci sëñ Afe la wala ñoo xam ne nii tey ñu ngi aju ci Sëriñ euh, tuba fu ci ne daal wala sax ñi ñi euh, ci ñi ko seqaloon daal ci gàttal waaw demee kër sëñ Mor Jaara matal na ko ba demee Daaru Muti matal na ko ba demee kër sëñ Masamba matal na ko waaye ñi bokkaloon sëñ Mor Anta Sali yëpp foofa dugg rek day mel ne sëñ Modou Rokhaya tey mooy taaw kër googa ci jikko ci bokk ci taxawaay. ma sëriñ Afe suñ borom jeexital na ci ndax jàngal na sëñ Modou Mamoun jàngal na sëñ Modou Mamoun mii woy juru sëñ Modou Rokhaya kon da ngay gis ne sëñ Modou Rokhaya am na ay tawféex yu bari ci fànn googu. diggante sëñ Modou Rokhaya nag ak guy mbind moom lu lu lu neex a wax la ndax li tax lu neex a wax la nit bu nàmpee jox la nga nàmp seen seenu njaboot ne fi. loola ñu di ko wéel di ko dox di ko jëf di ko wax ba yegg si fii loola yaakaar naa ne eh, lu neex a wax la waaye suñu diggante ak sëñ Modou Rokhaya mën naa wax ne ci lañu koy tàmbali tout tànk la ñu woon de waaye daanañu dem ca moom ca jamono yooya eh, ak a ñëw léeg-léegaan xat-xat am wala ku ñu téye wala nangam ak yu mel noonu loo ca xam ne dafa nekk ci loxoom ñu dem ca. du woon nit ku jàngul ku xamoon jàngoon la. du woon nit ku ñu sànni woon nii ku ñu yaroon la ndax jaar na ci jaar-jaar yu bari e, ba tax na e, ki nga xam ne mooy waajuram moom jaarit ci jaar-jaar yu bari muy Cheikh Mamadou Mahamoud waaye boo jàllee ci maam saxante itam jaar ci jaar-jaaraat yu bari ndax dafay mel ne kon benn jaar-jaar la jaar ba agsi fi mu ne soog a wuutu Cheikh Mahamadou Mahamoud maam Seex Anta ku xam na diggam ak Serigne Touba ku ne xam na taxawaay ba Soxna Anta Ndiaye taxawe ku ne xam na ni lam jural maam Seex Anta ak Sëñ Afe waaye ku ne xam na ni it eh, fam jaaroon doyalu ci woon mu delloo fa Cheikh Mahamadul Mahamoun bi Mahamoun tur wi beneen la eh, ku amoon kóolut ku ñu wóolu woon la waaw koo xam ne tey buñ doon dénkaane dara suñ ko ko dénkee du du du du su ñëwaat di laaxanaat leneen waaw mu mel ni ki yàlla yónni ci noonu amin la tuddoon Mamadul Amin waaye gis nga li ci dolli ko waat ba Mamadul Moustapha ñëw nga xam ne ci amin ji moo jiitu Moustapha ji Moustapha yi mooy tànneef gi kon mu delloowaat ko foofu ba mu jëlee ca lu rëy. moo taxoon lépp loo xam ne fu laa ko daan lijjanti wala fit wala sax alal doole woon na ci mu Modou Rokhaya daa ko lijjanti loo bu doo loo xam ne alal la koy def sëñ Modou Rokhaya du ci xaar sëñ bi alal boppam la ciy def bu dee tam lu yàq yoon wi te ñu war koo défendre sëñ Modou Rokhaya du ci xaar sëñ bi. fulaam lay dindi ba dindi taxas yooyee ak gàllankoor boobee ci yoon wi pas-pasam nag akuk lëggéeyam akuk jubam akuk maandoom ak bokkam fu baax mayoon na ko mu jege Sëñ Abdou Lahad lool Sëñ Abdou Lahad itam jege ko lool dawuñu umpante toujours sëñ mu Rokhaya yaa ngi beral waaye toujours Sëñ Abdou tam itam ma nga ma nga ma nga ma nga ma nga Daaru di seet sëñ Modou ya kon day mel ni PTM boo xam ne ñoom ñaar ñëpp nangu nañ ko te dëggal nañ ko <laughs> tawaay nañ ko itam nëbbuñu ko. benn ñi nga xam ne tey noo ciy wax nu doonoon ay ndaw ci wetam waaye mu xam ne moom e, du mag muy jiite mbir mi jikko moo koy jiite moo taxoon mu ñoddiwaat nu woon ni ci jikkoom ba jox nu cër boo xam ne tey boo fi ñëwee e, ñu war a wax ci moom. dañ xaw a gàgg sax da wax ci moom yombul waaye ginnaaw duma wax lu ma gëmul ah, danaa jéem li ma dundoon ak moom ma xam ne ku ko gën jikko du ma neex a indil ndax eh, jikko ji da ko wadde woon te jikko sax boo ko waddewut yar ak teggin ak woyof jikko ji du mën a baax waaye moom jikko ji mooy mooy melawam doon doxe waaw loolu kon mu séddoon cër boo xam ne eh, ci bokk gi dafa mel ne boo toogoon ak nun sax da ngay defee ne du du du du nit akub rakkam du nit akub taalubeem ndax man foofu laa ne ku mag ci yoon wi tan seq ko xamal ne nu ma nit di yëlife rek noonu nga ma yëlife te joxoon naa ko cër boobu daana la jéem a toogloo ci kaw sax waaw waaye musuma koo nuyu te fàttali ko te sukkuma waaw bu bu ma lu danaa fexe ba moo teg ci loxoom dara loolu ci yooyu loolu du léegi waaw kon fa ma tegoon gaaye rek foofu laa tegoon sëñ Modou Rokhaya waaye jikkoom moo ko fa teg sëñ Modou doonoon ku bëgg ak bokk te mën koo rafetal ci wàllu ak bokk gis ngeen ni eh, da nga daan gis ne bu gisee nit ku sant Touré wala bokkoo ak nit ñi daana tax mbool ñi ñi nga xam ne ñoo nijaayam ñoo nijaayam ñoo jamonoonte ci daara sëñ gaawaan ku mel ne sëñ Màkka Touré mi bokk ak soxna Roqee ture ndey ak baay sëñ Màkka moomu mboolem ku mu jamonoonteel ci daara yi maam Cheikh Anta sëñ Modou Rokhaya nijaay la la def ndax sëñ Màkka dafa teel a génn àdduna waaye bi mu génnee àdduna mboolem mag ñi àndaloon bokk nekk ci daara ji amu ci ko sëñ Modou sàllawlu ñëpp da leen a jàppee nijaay ndax sëñ Màkka mañ doon àndal ba seenu njaboot sëñ Modou doomi nijaay la leen def ba jur na ak bokk gu yaatu goo xamante ne bii boo gisee sëñ Modou Rokhaya bari kal bari farse ci bokk googu li ko waral mooy ñoom ña ñëpp dafa dafa dafa dafa daf leen a jàppe nijaayam ji nga xamante ne bii eh, moo doon sëñ Màkka Touré loolu mooy bëgg ak bokk. melokaanam diggam ay bokkam boo ko xoolee ci man danga nga daal di mën a jàllale ci bokk yépp ndax mbokk jikko rek moo ko mën a téye eh, ak ak yëg te mooy jikko rek. waaye jikko bu baaxul doo xool nooy mën a yëge nit sax kon sëñ Modou Rokhaya jàngale woon na ci ak bokk lu bari waaw wane ne e, ki ndawe ak ki mage e, bayi woon na xel ne kiim ndawe da nekkaat mag jombul waaw loolu itam njàngalem sëñ Modou Rokhaya bokkoon na ci ngir bu ñu fi nekkatul ñoom ñiñ fi bayi mën a doxal jikko jooju ndax nit bu bëggee bokk dëgg mooy dañu wax ne commencé ak sa baay sa baaya commencé sa nijaay sa nijaaya waaye commencé sa yaay sa yaaya sëñ Modou nag képp koo xam ne euh, maase woon nga ak nijaayam maase woon nga ak baayam ñenn ñi def na leen ay baay ñenn ñi mu def leen ay nijaay looloo tax boo demee ci sëñ mu Rokhaya da ngay fekk mu bari ay doomi nijaay lool te dara waral lu ko li weesu dañ bokk gi ñu bokkoon ak euh, way juram nekk ci daara kon loolu bokk na ci wegeel waaye dégg njàngaleem sëriñ Touba ba euh, cër bi mu war a jox ay kilifaam mu jox leen mu jox leen cër boobu. am na sunu mag joo xam ne nii tey mooy Alhaji Abdul Wadot moom moom eh, noon lañ deme woon te sëñ Modou moo ko magoon ndax eh, xaw na ko magee fukki at dix-huit ak vingt-huit eh, fukki at la waaye teewul daf koo jëloon. ànd ak moom ci bokk gi waxuma la nag waajur yi nga xam ne ñoo ne ci biir waaye kenn ku nekk nga xaw a mën a tollool jëflante ci war may yoon wi moom la jëloon moom it mu doon koo xam ne ku mu ayib la ci defarug bokk ñoom ñaar yàlla moo dogal kee mm, boobu bi mu fiy jógee quarante cinq euh, quarante sept ans la am waaye tàmbali woon naa ak moom euh, liggéey ci bokk gi fas yéene woon diggante ñaari kër yi ñuy wax ñaari kër te muy genn muy waa kër euh, Soxna Anta Ndiaye ñooñu di kër Sëñ Afe ak Saxanta euh, bëggoon na kenn du wax sax ñaari kër. koo xam ne dañ ko mos a te xam naa lañ ko téye woon njuumte la euh, bi ma jógee fii dem ca moom boobu la njëkk a toog sax ma yegg présenté wu booba yoruma oto sax dama dugg ba tolloog altub Daaru dox ak sama tànk ba yegg ba ma yeggee waxtu yoor yoor la maa ngi ko fekk mu toog ci ëtt bi eh, yor ak leefaa ma nuyoog moom ba àggal mu ne ma foo bàyyi ko man ko man de guy mbind laa bàyyi ko mu ne ma kon di ñëw nga ci sa kër ma daal dina ko man doomu sëñ Abdoulahad Baara laa eh, dafa am sama taalibe sama sama sama taalibe boo xam ne taalibe sëñ bi boo xam ne mm, dañ koo téye waaye ca tëyin wa dañoo jàpp ni am na ca loo xam ne xam naa bu bu bu leeree dëgg-dëgg eh, lañ lañ foog ak ak ak la am bokkul ba ma daan daane mu daal di ne man nga xam ne day ëtt bii kenn ku sëñ Touba du ñëw di fi wut si lenn mu dikk fekk fi loola te yóbbaale ko bu ko fi fekkee yóbbaale ko bu ko fi fekkut dana toog ba ñu wuti ko ba am ko mu yóbbaale ko te lii ngay wut am na fi. daal ne ma toogal danaa la fekk fii léegi walla ñu wax la ci lu leer nañ booba téléphone portable yi amut mu daal di woote ci fixe bi woote wax wax wax wax ba mu yàgg mu ne ma léegi demal danaa la fekk Touba ba mu yàgg mun ma kaay sax mu ñëwaat kam doon waxal mu wax ak moom wax ba àggal ne ko nag na ma fekk si fii te paas sax na ko ko jox li muy paase ñëw na ko ko jox daal di ma demal bu ñu noddee tisbaar boo xamee ni euh, agsiwul nga woowaat ma téléphone kooka ba ma jógee Daaru Salaam booba woto mel ni mu mel ba ma daan dox ba yegg si ba ba ñëw ba toog bay attandiku daanaka ci la ma fekk ca kër sëñ Abdou Lahad ñibbi muy ñibb si bu gaaw xaw ma otaa ko andi xaw ma nu mu demee waaye man daanaka balaa ba ma daan yegg si bay attandiku ba naan ba ba naan sëñ bi doxe woon naa lii rek fekk na boobu kooku ñëw na kon loolu daf lay jox firnde ci xettale yi nga xam ne daana ko def jox la firnde ci fi mu tegoon sëñ Touba jox la firnde itam ci eh, mbëggeel gi nga xam ne ak cofeel gi nga xam ne amoon na ci amoon amoon na ko ci ci ci ci kër sëñ Baara. pas-pasam nag ak lëggéeyam ak jubam ak maandoom ak bokkam fu baax mayoon na ko mu jege sëñ Abdu Ahad lool sëñ Abdoulaye itam jigee ko lool dawuñu umpante toujours sëñ Modou Rokhaya yaa ngi beral waaye toujours sëñ Abdoulaye tam ma nga ma nga ma nga ma nga tawféex ma nga Daaru Salaam di seet sëñ Modou ya kon day mel ni PTM boo xam ni ñoom ñaar ñëpp nangu nañ ko te dëggal nañ ko tawaay nañ ko itam nëbbuñu ko ba tax na li sëñ Abdoulaye taxawal sëñ Modou Rokhaya kenoon la ca. kenn bu dëgër ndax ku ne xam na waajuram sëñ Mourou Mamoun waaye ku ne xam ne euh, maam Cheikh Anta ni ak sëñ bi amoon nañ mbooloo yoroon nañ barke waaye barke boobu itam li sëñ Mourou Roqe nangoon def nangoon na ko partage ak sëñ Touba nangoon na ko jox sëñablaat te jàppale ko ci liggéey bi ba kon liggéey bi rafet na rafet goo xam ni liggéey sëñ Abdou Lahad rafet na rafet goo xam ni sëñ Mourou Roqe am na ca part responsabilité waaw ndax dawul dara. boo demee fu mel ni kër Cheikh Mahamadul Moustapha ga mu yaroo gis ni mu defoon ak sëñ Ahmadou Tindo di def ni mu def ak sëñ Aliou da ngay jàpp ne ñooñu la bokkal ndey ak baay fonk ko rafetal ko moo tax nga gis ne doomam kii mag ci ak njabootam maam Cheikh la ko tudde waaye ka ca topp sëñ Moudou Mamoun la ko tuddee ku ca toppaat sëñ Moudou Moustapha la ko tuddee sëñ Moudou Moustapha tuddee Serigne Touba waaye yemut fonk wëllëre ak bokk ko da gis ne ci biir këram sëñ Modou Moustapha ngi fi sëñ Mbacke Madina ngi fi sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde maa ngi fi loolu tegtaloo ne feema tarbiye woo kat fàttewuma leen. ndax ndax ndax jëfam ku xool di ko gis wala ay waxam ku déglu di ko dégg kon nag loolu firnde la ci. fa si yéene woon na sax at mu jot euh, ñu ganente. ndax na mas ñëw seet si sëñ Abdul Wadot ñu bëggoon itam sëñ Abdul Wadot ànd ak famille bi yëpp dem Daaru Salaam eh, nekk foofe gane fa kon bu fekkoon ne liggéeyam eh, taxawuloon ni mu taxawe te booba nun mënunu ko ndax ay ndaw la nu jombul eh, waaye mu jëlaat cofeel ga nag ku ci noonu waaye kon Daaru boo fa àggee danga nga gis na kër ga kër na kër yee wëre penc ma da nga gis ci njaboot gi ñoo xam ne nii seeni kër noonu lay wëre penc ma ngir xam ne bokk gi gen la comme na nga gisee kër sa ñaafe gi nga xam ne tey ma nga ca mm, ca dëkk ba te muy kër goo xam ne nii eh, kër sa ñaafe boppam la woon eh, maam saxanta jox ko fu cër yu rëy ci jàng ak jàngale ba mu jàngal fa euh, ki waral sax ñuy waxtaanee waxtaan doonoon boroomu fit doonoon boroom jom doonoon boroom pësteef euh, sëñ Modou buur mësu koo yab baadoo la koo yab ndax euh, maanaam sun borom joxoon na ko jikko joo xam ne kenn du ko yab te noonu xar kanam bi. mele ne boo ko gisee da nga naan kii bu ma àggee gaynde lay doon gu ma rey soo demee ba àgg ci moom da ngay fekk ne xarum yar sëñ Modou ko gën a nooy ronkoñ yi jege ko loolu gaaw sotteeku ci am yërmande ci doomu adama am noonu yërmande ci doomu adama nekkoon nday ji seex boo dikkee fii Daaru Salaam ci ak dundam da ngay gis ne borom sareeti mbaam yeeg borom sareeti fas yeeg néew laago yi waaye doo néew doolu yëpp mujjoon nañ wutal sëñ Modou Rokhaya ab rek ngir lan bu leen bu ñu leen naree daan mu taxaw leen maa ngi fàttaliku benn bis borom sareti mbaam yi bi ñu leen fukki dërëm sëñ Modou Roqee ñu ñëw wax ko ne ko ñun de dañuy fay juuti fukki dërëm sëñ Modou ne leen da ngeen a mën a am fukki dërëm ba di ko fay juuti bis bu set daa dafa ànd ak ñoom bindut lettre dafa demal demal boppam trésor dem mairie taxaw wax leen na leen borom sareti mbaam yi nañuy fay juróomi dërëm fukki dërëm mënuñu koo fay ci ci ci ci juuti bi nga xam ne ci loolu lañ tàmbalee ba borom sareti mbaam yëpp mujj di fay juróomi dërëm loolu défendre nit ki maa ngi fàttaliku benn bis itam auto police dugg ci dëkk bi ci wàllu euh, ni muy jabootee ak ni muy aare njabootam auto police dugg fi booba commissaire bu sant juuf moo nekkoon Mbàkke bi ñuy dugg ñu ramasse ñuy def ramasse booba xale yaa ngi fo ñu leen ramassé yóbbu leen sëñ Modou xëy dem sant dem police ba mu demee def na commissaire lu tax nga yebal sa waa kër ñuy dugg daal Salaam di fa ramasse mu ne ko ramasse bi Mbàkke lañ ko tàmbali woon mu ne ko na yam Mbàkke waaye na mujj tey oto police dugg Daaru Salaam di fa jàpp nit man sama doom kenn du ma ko yaral maa ko yaral sama bopp su ngeen ci amee lu ngeen naqare wala lu ngeen di tere da ñëw ne ma ñi ngi tere nangam ci dëkk bi wala bis sàngam wax bëgguñu ñuy génn ma wax ko waa dëkk bi waaye bu police duggati ci dëkk bi daal di génne ñooña def leen ci otoom bi mu andee bi mu agsee ab yar laarub laarub ab laar la amoon comme fasi course yi ñu leen daan dàqe da koo génne na jox ma paxta ba def leen a duuma ñoom gone yi ba ñu mën a leen na mujj tey ma dégg leen ci lu ñuy tere nga xool ne kon ndakate moom défendre gone yi bu jotee dana leen défendre waaye yar leen bu jotee itam dana leen yar kooku ma doon jikko sëñ Modou Rokhaya néeg Darou Salam bi nga xam ne moo nekkoon ci kër sëñ ab Lahad néeg bu sëñ Abdou Lahad fonkoon la ba doomi sëñ Tuubaa yu yëpp ñu ñëwee fa lañ dal sëñ rek sëñ Mourtala ak doomi sëñ Tuubaa yëpp lañ daan dal kooku nag fonk gum fonkoon sëñ Modou Rokhaya waaye fonkoon gum fonkoon sëñ Modou Mamoun ak maam si Anta moo taxoon muy def loolu kon ñoom ànd nañ nañu war a ànde ci bokk ànd nañu war a ànde ci fulla ànd nañu war a ànd ci dëgg ànd nañu war a ànd ci pësteef ànd nañu war a ànd ci liggéeyal sëñ Touba. loolu moo ko yóbbi ci xemmemteef ci liggéeyal sëñ Touba tàmbalee ko ca sëñ Modou Moustapha moom tarbiyewu Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne demoon na ba àgg ci woo ko benn bis moom ma ko nettali ci aw làmmiñam guddig màggalu Tuuba te loolu xisa ba dafa guddu nee na damaa ñëw fekk ko mu teg ab tabulier tiim cere yi sëb nee na ma ñëw mu ne ma xoola waay ndable ubbi ko soosa nga ca bee ñamu Tuuba bee nangam bee nangam ne ma ubbi ci boo bëgg nga reere ko ma ne ko yeede yi bëgguma caa reere benn mu ne ma boo bëgg a reere ma ne ko bii nga tiim mu ne waaw aka muus waay aka muus nee na daal di mën a andu ma andu si mu daal di fab satala gis sif ci cere ji kobos ci sëm ñi boole ko dànk ba ma àgg mu ne ma ŋaal ma nga mu def ci benn morsam ndawal bi ma ŋaa mu mu sexal ma ko ne waaw Daaru Salaam a ngoog Daaru gépp a ngoog loolu moo tax sëñ Modou Rokhaya ba àdduna yi tukki bu ñu tuddee Daaru Salaam tudd sëñ Modou Rokhaya boo masaa dugg këram day wane ne maa moom kër gi loolu moom loolu mooy mooy mooy jikkoom waaw Eh, mas na ma ñëw di ko nuyu sukk nuyu ko la ma am kës ne mu jox ko ko benn njaboot jox ma loxo eh, mu ne ko ndax xam xanaa xàmmi woo sa sa bi da tàng jër nag xanaa xàmmi woo sa baay bi ne ko ah, kay xàmmi naa ko kay mu ne ah, nuyoo bi woyof na di kooku nag kon bu fekkoon ne Euh, yar kat euh, gone yi jamono jëpp war nañoo waat xel kooku waaw ndax waaw koo xam ne nii mën na am euh, la tax mu judd sax yow la bu jamono doxee ba mu mën laa jox cati baaraam adduna tukki na sëñ Tuubaa nam doon yare jalgati nañ ko te loolu moo moo mel ne moo am waaye kooku ku ci ku ci garoon bakkanam la dama mujj sax rus jekki-jekki tàggoo te man la ma taxoon a ñëw boobu du loolu waaye moom amatul aalu niñ ma niñ ma joxe benn loxo ta ma sukk nuyu ko loolu daal moom metti woon na ko ba fi mu nekk référence lu rëy la ci man ndax nun ñi ñëpp kenn ku ci ne war na cee yar sa doom wala sëb sët Cheikh Modou Rokhaya itam ah ñu delloo ko jox ko Cheikh Mahamadul Moustapha eh, loolu itam xam nga ba tey yëf ya doyut mu muy dellu di dem rek ba agsi fi mu agsi mu méngoon jamonoom lool nag ci digganteem ak waajuram yi mu fi nekkaloon moo xam ci euh, ci ci ñu aju ci maam Seex Anta la wala ñu aju ci Sëñ Afe la ñoo xam ne nii tey ñu ngi aju ci euh, Sëriñ Tuubaa ci ne daal wala sax ñi ñi euh, ci ñi mu ko seqaloon daal ci gàttal waaw boo demee kër sëñ Mor Jaara matal na ko boo demee Daaru Muti matal na ko boo demee kër sëñ Masamba matal na ko waaye ñu mbokkaloon sëñ Mor Anta yëpp foofa dugg rek day mel ni sëñ Modou Rokhaya tey mooy taawu kër googa ci jikko ci bokk ci ak Cheikh Abdoul Ahad yaakaar naa ne eh, du ci dellu waaye diggam ak Cheikh Abdoul Ahad keroog bi sëñ daf ko woo ñëw mu ne ko kaay dem Touba. nekk ak sëñ Abdou boole ko ku ñuy wax Mbacke Mbay ma Seen limoon nañ bañ mat euh, Ousmane jóob ma doon safoor ba sëñ Modou ma am fab oto boppam ak safooram boole ci ñetti gaali yére na leen dem neen yóbbu ko tubaat te bu ngeen demee na ngeen toog fa sëñ Abdou Lahad ñee diirub ñetti weer sëñ Modou Rokhaya ne nee naa ko am naa ko kër sëñ Abdou moo xam ne néeg bu sëñ Abdou Lahad dugg maa koy maa koy tijji yàlla boole leen ñuy benn nee na bu sëñ jamono ji sëñ Abdou doon agut xalif général des mourides su masaa tukki tawfeex la may fekk su ñëwee tawfeex dana fekk na defar naa gaal def ci ay yére yi mu war a sol yëpp ba mu àgg ma di ko ma di nga xam ne du ma ko tijji googu gaal moom duma ko tijji ndax waxtu wu ne la fa sëñ Ablaat di ñëw waxtu tey fu mu jëm du ma ko ne foo jëm du ma ko ne kañ ngay dem nee na day agsi rek ne ma sëñ du nañ dem yar nga fi yére yu set ma ne ko waa mu ne ma kon fab ko sañ dem neen na ma daal di fab gaal googa ànd ak moom nee na bokk nañ dugg ci ab 46 bokk nañ dugg ci oto këriñ lu ne ànd nañ ko def. ce booba dara taxu ko woon a jóg lu weesu jom joo xamante ne bii sëñ Abdou amoon na ko ci digganteem ak eh, liggéeyub sëñ tubaab bi sëñ Fallu di xalifa de des mourides te fasut yéene wenn sas sëñ Fallu sase ko te sëñ ablaat Lahad bokkut ci ñi cay ëppale njëkk caa noppi suñu borom da ko teel a jox jom nee na ma ànd nañ guddi ànd bëccëg ba bis sëñ bi bis bi njëkkee tiir sëñ Fallu sëñ Modou Mamoune sëñ Fallu eh, sëñ Abdou Lahad mi ngi fanaan Tuubaa Tuul daawut tàggoog sëñ Modou Rokhaya guddeeg bëccëg nee na ma soo mësaa ñëw yii daanaa ko tegale ataaya ak bës daanaa ko def sëñ laat Lahad at di ko ataayaal ndax nee na booba jamono jooja ku bëgg ataaya ca man booba fekk na ma tàmm ataaya kër sëñ Modou Moustapha kon di gëm ak sëñ ba ni mu doone xalifa général des ba ni ko sëñ laat Lahad liggéeyloo néegam bii ci néegam bii ci kër sëñ këram gi kër sëñ gi néegub Daaru Salaam boobu keroog ba ko sëñ Modou Rokhaya liggéey sëñ Abdoulaye def ko ne sëñ Modou jox naa la fi jox fi ñeneen ak neneen ak neneen sëñ Modou daal di ko ne xaaral ma wër néeg yi nga fi joxe ñi fi defar daal di wër néeg yëpp ba si daal di ne ñoom ñëpp gis naa seeni néeg maa leen di gën a rafetle maa leen di gën a dëgërle ba mu ko waxee ndeysaan am na ci menn mbokk mu ree daal ne waaye sëñ Modou yaa neex mu ne ah kay teguma ko ci baatin ñoom ñëpp gis naa lañ liñ rafetle gis liñ manqué damay boole liñ rafetle lañ manqué ma teggi ko su ko defee maa leen di gën le sëñ Abdoulaye ne ko loolu la sikkuwut moom waaye gis nga néeg boobu noonu la ko sëñ Abdou Lahad fonki woon. nga xool sëñ Abdou laat digg moom liggéey bi dafa yàgg dañoo liggéey liggéey bu xaw a yàgg yaakaar naa ànd nañu it te sëñ Abdou sax nekkul xalif seen daal di murit néeg bi nga xam ne sëñ Abdou Lahad fi dal nga ne mooy néegu boppam diirub li mu ne ci nekk sëñ ci kër gi ci nekk sëñ Modou Rokhaya boobu la doon nekk ci kër sëñ gi mooy néeg bi nga xam ne mooy ne ci bunt ba léegi nii sax ku fi nekkal sëñ Touba fa ngay yendu fa ngay nuyoo ba ci sëñ Saliou ba ci euh, sëñ Sidi Maxtaar ñoom ñëpp ba ci sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa moom da koo defar la waat sëñ si Anta ngir euh, la sëñ Modou Rokhaya defoon liggéey ba sëñ si Anta def ko nu gën nu gën raw dam defoon ndax xam nga ne jamono day soppiku mu dëkkale ko jamono ñàkk ca millions yu bari ngir yàlla ak sëñ Tuubaa ba sëñ Muntaxa moom fa lay yendu fa lay faan na ko sëñ Abdou daan defee sensé wu ci dara. loolu nag nangu liggéeyu sëñ Modou Rokhaya rek lay niru naw naa ko lool jamono yii muy liggéey kër sëñ Tuubaa gii fila ci laa ci laa ci laa ko xamante xamante moom bu wér a wér a moo bàyyi sëñ saaxo euh, bàyyi sëñ saaxo itam ma xam ci moom lu loo xam ne nii daanaka nu may doxee nii lu ci bari ci moom la ndax moo ne ma alaaji ma ne ma ne ko mbàkk mu ne ma dama bëgg a waxtaan ak yow mu ne ko waaw Baye Sëriñ mu ne ma jamono ji kat daa soppi ko mu ne mu ne ma kilif kilifa yi daa bari ma bëgg laa wane yow ni ngay doxe ndax saa doom nga ma ne ko waaw mu ne ma daa bëgg nga xool ci sëñ ak ñi àndoon ak sëriñ Touba ni ñuy doxee nga doxee noonu ndax boo ko defut mu ne mu ne da nga juum moo tax ma bëgg mu ne mu ne ma koo mën di àndal xoolal ci moom sëñ Touba. boo ko defee rek doo am benn doo am am benn problème loolee nag ci laay dox ba nëgë ni te mag ñi jiitu woon ba ba indépendant ñëw loolu lépp fu ci ne am naa ñoom ay relation yu leer yoo xam ne xam naa ne waxtaan wi du ko laaj waaye la la la la la la tàmbalee ca ñañ daan tudd mm, di leen tudd moo xam Blaise la moo xam Ngalandou la moo xam Lamine Guèye la moo xam Senghor la ba agsi fii nu toll ku ci ne amoon naa ak ñoom ay relation yi yu xóot yoo xam ne nii ah, ndax sëñ gaawaan mm, daf doon liggéeykat bu rëy bu biir saay saayir lañ ko jàppee mais moom liggéeykatu biir la mënutoon mm-hmm. a ñàkk ci bàmba ji ci liggéey lu rëy yoo xam ne taarix mën na ko tudd mën na ca gëmm waaye liggéey na mm-hmm. moom nag ba xamee ne liggéey na baayam liggéey na moom mu waaye nag ma ngi ko wodde nag pas-pas boo xam ne nii du booleeg sëñ Touba dara waaye fu dëgg ak seen ak ak fulla nag mu taxaw wax ko donte daa raam donte day jooy dana wax ak kooka wax joo xam ne nii bu ko waxee kooka du mën a def lu dul jàll ca la la sëñ Modou Rokhaya doon xalaat. sëñ Modou guddi altene di bisub gàmmu ci la génn àdduna ci guddi nga xam ne boo doon seet. subhaana allazi asra bi habdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir aaya boobu boo ko doon xool guddi waxtu wi ñu rañaane yonent bi ci bis bi ñu ko rañaane même heure bi ñu rañaane yonent bi ci la sëñ Modou Rokhaya génn àdduna ci la ak ruuxam rañaan jëm ci boromam subhaana wa taala loolu mënoon naa génn àdduna ci bisub gàmmu te doon ko ci bëccëgub gàmmu mënoon naa génn àdduna bisub gàmmu te da doon guddik altine dimanche ca ngoon bët altine mënoon naa génn àdduna itam eh, te te te te te yi ci dëppoo yëpp du ci bari waaye sëñ Modou Rokhaya guddi altene di bisub gàmmu ci ñetti waxtu ci guddi nga xam ne ñi ñiy wax nettali rañaan gi yëpp gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddi la rañaan ci booba guddi gi sori na waaye delsiwaat na ci bi biñ daataaka julli fajar diggante yooyu ñu ko doon rañaanee nga xam ne ruuxam ak jëmm yaramam ñoo àndoon ndax loolu Euh, sëñ Tuubaa nee na bil gis mi jaxra bil iftiraa yi kon euh, yàpp yaram wa da caa àndoon waaye sëñ Modou Rokhaya waxtu woowu lañ jël ak ruuxam moom it di ko rañaane di ko yóbbu ci borom kon loolu doy na sëkk ci liggéeyal sëñ Tuubaa ak pas-pas bu rëy. ba nga xamee ne yàlla dogal na itam mu mu mu mu bàyyi koo fi sëñ Cheikh Anta mii tey toog wuutu ko mat ko sëkk ni ma wax léegi di ko jëf di ko dox di ko wax ndax digganteem ak sëñ Saliou. noonu fi la fekkoon bari na jëf yu mu fa jëfoon yoo xam ne ba tey li tax jëf am solo euh, ëpp solo foofu ay wax mooy la lu bari na lu jëfoon jëfal ko sëñ Saliou ngir jëmmi sëñ Touba tey mën ngaa waaxu teg ca baaraam xam nañ fan la ko sëñ Saliou tegoon itam bi nga xamee ne noppi na koo gis itam euh, xam nañ jëf joo xam ne jëfal na ko Cheikh Mouhamadou Lamine euh, muy Alaaji Baara am na ci jëf yoo xam ne noo ànd sax ba ba yegg ca ma seetal ko saa bopp ba mu ko noppee gis itam am na jëf yoo xam ne itam jëf na ko ci Seex Sidi Muxtaar foofu moom dinaa fi mën a sori lool sax ndaxte waxuma jikko ji waxuma taalibe gi waxuma doxin wi ci ci ci léppi sëñ Touba waaye ku fi toogal sëñ tubaa nga nga moom léppam moo waraloon sëriñ Sidi Muxtaar ci boppam dem na ba naw ko ci jikko ci jëf ci dox ci wax ba tax mu jël doomam bàyyee la ko ne ko yaa maye ba nga xamee ne së së sëriñ bi jóge na fi itam ba mu ko mayee te yàlla dogalul sëriñ bi jóge fi itam sëñ Muntaxa mi dafa wéel loola ni ko yaa koy maye maye ñu dem mayee ji ko fa kër sëñ Muntaxa kon loolu dong maanaam firnde la ci digganteem ak Cheikh Sidou Moukhtar. nee nañ sëñ Modou Mamoun dafa jëloon million boole kooku almet ah, ku sëñ Fallou ne ko la neexee nga taal ko wax nañ ne def na ko waaye moom it lam tollool ba mu agsee ak lii nga xam ne tey moom ngeen dëgmal yaakaar naa ne def na ci loo xam ne nii taarix duutu ko fàtte ci àdduna waaw ku ne mën naa joxe addiya waaye borom cër bu réeréy bu tol ne moom ak lim semboon te loolu xoolu ko mën naa lebi sax mën naa wuti faneen mu ne kaay nu dajale addiya di ko jox sëñ Touba man mii wax ak yow de man man am naa ci ak royukaay ci loolu am naa ci royukaay bu wér ba defe naa mas ma wax sëñ saali wu ko nañ ma ñaanal ba ni waa Daaru di def ma di ko def waaw ba tax na kooku kon sama euh, sëriñ la sama doomi sëriñ la sama doomi sëriñ la waaye ku ma jàngal la ma royukaayal taalibi bu dul joxe du yor dara maa la ko waaye sëriñ bu dul joxe it nag lu ñu jong lekk ko it doo yor dara mën nañu jàpp ne sa aju day faju waaye fi mu ne yàgg na sonn ñëpp ci ci xalifa yi nga tudd ak yi nga xam ne tudd leen waaye yi nga xam ne tey ñoo woote bi muy sëñ Mor Mbacke walla sëñ Jili sëñ Madou Mahmoud wala ba agsi ci sëñ Cheikh Anta sëñ Cheikh itam nga moom du neex deret euh, may dugg ci moom di ci wax lu bari waaye suñ diggante ab diggante la woon boo xam ne sëñ Madou Rokhaya xamoon na ko moo ay rakkam yoo xam ne nii ñu ngi ci wetam ñoom ñëpp sëñ Modou xamoon na sama diggante ak ñoom ba daana wax ak man ci ñoom di wax ak ñoom ci man yow mi nga xam ne xam naa ne eh, gis naa nga doon gone waaye jege sëñ Modou Rokhaya man duma ma nit bëtu gone damay xool na ko kooka defoon te kooka li ma waan rek ne nit la bu ma tàmbalee wax ne nit la rek xamal ne wax ja fereng laayoon te doo dégg mukk mu bàkku maa man nangam maa def nangam maa wax nangam maa ni nangam kenn mësu koo dégg ci maam Cheikh te lii may wax nii itam ñi ñi koy dégg xam nañ ñu dëgg la ndax wax moom la koy amal solo mooy nga di ko wax ngir yàlla. Eh, gis nañ ko ci moom it bu ngeen doon seq dara loxoom ndijooram bii sax ba ba ak bopp càmmoñ bi ñoom ñaar duñu bokk génn mbub mbubb mbubb mi mu sol. fokk benn loxo bee na ci biir du yëg sax beneen loxo ba la nga xam ne moo ngi ko def bu ngeen bu ngeen demoon ba ba di ko séq ndax toog nañu gis mu di ko séq ak i nit nu teg ci suñu bët mos noo dégg mukk itam ñu ni diw nangam njee lam yor mu ne diw maa ko jox nangam wala maa ko defal nangam musta am wala maa yóbbu béréb sàngam nangam te kat mi ngi jëf mi ngi dox mu ngi wax ci loo xam ne lu wér la ñëpp xam ne ko teg ci seen bët yoonu yoon wii foo dégg kër goo kër goo xewle boo demee fekk fa sëñ Seex te lool jukkoom la bu muy doxe ndax am na jamono ji kat am na loo xam ne ko ne doon doxe doo seeti kenn ndax am na ñoo xam ni yaa fay dem waaye ñoom duñ ñëw ci yow te te jenn sëñ Tuubaa ji képp koo koo kooy warmaal ku ne sëñ Tuubaa tax te bu ko neexoon toog këram waaye loole moom seetu ko kuy sëñ Tuubaa ku ne lu mu am jox la fu dégg sëñ Tuubaa ku ne lu mu am jox la loole nag laa bëgg xam naa sax yombut taalib yëpp mel ni taalib taal ab taalibe waree su koo dàkkantal ci kee rek kee diwa kee taalib yëpp sëñ Tuubaa la ndax noonu sëñ Moodu Roxaya daan doxe loolu boo ko defee rek daal di am jàmm sëñ Moodu Roxaya kenn mënu koo woon a ci kenn ku dul sëñ Tuubaa loo loolee nag doy na sëkk. jàmbaar la wax dëgg yàlla sëñ Cheikh Anta hmm? ndax sëñ Tuubaa ñor na ko. man sama digg moom laay waxe hmm? lu man na da cee nekk ak man te man li may woote liggéey Sëñ Tuubaa dong la ci àll ba laa koy defee waaye ba ma ko tàmbalee léegi ay ndaw ma ña nga fa ay njabootam ma nga fa ay rakkama fa te day ci booleeg yëkk tànkam bëgg ñëw kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal jataay sëñ mu roqee bi mu toog mu yàggee ko lool hmm? te am ci dam من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد حوى نبينا رسول أحمد تقديم من هو الخديم الأحد من يمي أتى الكرام المدد هو الإمام والسبيح الأجود